salaamaaleykum amante net yu Dakar Buzz ñu ngi leen di nuyu di leen siyaar di leen ñaanal jàmm waaye di sant yàlla ji ni nga ñuy toppee ci vidéo yi ndax euh, yaakaar naa ne kii jooy ki ko ndax mooy mbokkam ñu ngi santaat yàlla bu baax ci ni ngeen ñuy bàyyee xel di bàyyi xel sunu maladie seen émission Dakar Buzz sociale jógaat na nag comme ni mu ko daan defee waaye du nuyu ñi nga xam ne ñoo ni fii ci réew mi di dundoo ñun émission bi. du nuyu itam ñi nga xam ne ñu ngi di bitim réew di dundoo ñun émission bi di nuyu diaspora di leen ñaanal yàlla taxaw leen te yàlla jàmmal leen yàlla jëlee fi mbas mi te indi ay xéewal malaat bu nu jot a dem rek yàlla yàlla yëkkati la te yàlla saafara ko yéen ñi jël seen alal di ko ci def tam muy dërëm ba ci million lu ci waay def ñu ngi ñaan yàlla yokk la te yàlla fay la ko te yàlla dina la ko fay ndax yàlla ko jaamu yàlla jaamu yàlla yi yàlla mooy ki lay fay kon nga dimbali ko yaakaar naa ne suñu borom gis na lépp kon ku ci def sa dërëm rek maa ngi ñaan yàlla yokk la te yàlla dooleel la ci barke yonent jogaat na nag tey ñëw fii ci Pikine seet si sunu frère boo xam ne élève la di jàng at mi mu waree def bac ci la ko feebar bi daal feebar bi nag bokk ci feebar yi ëpp yi may tourné muy jalis mu nekkoon ci voie boo xam ne mu ngi doon jàng nit ñi am ci moom yaakaar ba tey yaakaar dañul macha allah ndax ñi ngi ñaan yàlla yëkkati ko ba mu mën a continuer ay études waaye xam nga xale buy góorgóorlu di jàng dem ba war a def bac jour bi mu waree def bac ci la ko liy dal muy lu metti mais ñu gëm yàlla xam ne yàlla mooy kiy tege te ñu ngi ñaan yàlla teggi ko ndax fekk yaa ngi xëy rek di noyyi am na koo tane sant yàlla nag ndax lu métti métti boo duggee hôpital gis koo xam ne yaa ko tane sant yàlla di ñaan yàlla teggi feebar bi feebar bi nag di jalis jalis ku ne xam ne dafa laaj ay moyens feebar la boo xam ne dafay def deux séances ci semaine bi séance bi ci nekk mu war cee fay war cee boole pass taxi loo bari bari doole dañ koy yëg rawatina boo amul doole mais ñuy sant yàlla di leen ci yaakaar yéen ñi nga xam ne yàgg ngeen a participer ci vidéo yi rawatina émission bi Dakar Buzz sociale waaye di gërëm ci ni ngeen di bàyyi xel plateforme bi nga xam ne mais leen képp kuy bàyyi xel émission bi rek muy téeméer muy téer dërëm ba ci million loo fa sànni dinañu dimbali ndax dinañu permettre samay seeti malade bi. dinaa ci mën a jël jox ko malade bi mu néew mu bari kon loolu gis na ni ngeen bàyyi xel plateforme boobu numéro bi de 78 601 11 11 ñuy sant yàlla si ngeen ciy wéttilee diñ ciy dimbali dama bëgg a waxtaan ak malade bi feebar bi kañ la ak nan la mon frère maa ngi lay nuyu. waaw maa ngi lay fay. tur bi nan la. Adama Diallo. Adama ban façon feebar moo la dal. insuffisance rénale dialyse. depuis kañ la. depuis 2018 jour bac 2018 waaw. nan nan la nan la la nan la la nan la la dikkee. dama yeewu sangu defar ndékki di waaja dem defi sama examen affaire bi dama miirloo mais miir ba xamatuma fu ma nekk après si laa daanoo noonu ñu jël yóbbu ma hôpital hospitalisé ma foofu trois jours après ma génn ñu yóbbu ma Thiès di ma foofu noonu. actuellement nii nii. nan la def ak sa études yi nga doon def nan la ci def nan la ci nan la ci def. dafa empêché suma études yi parce que su la dalee doo mën dara déplacement bu bari doo ko mën parce que loolu mouvement boo def da ngay sonn ndax ren mooy nit su fonctionné wul rek nit ku du fonctionné loolu. nan la ordonnance yi di mel ak ak ak science yi ndax ku ne xam ne jëlis feebar la wax ne feebar moyen la nan lay mel su ngay jogee di fixe di dem ba IASO di def science yi nan lay mel. day day métti trop ndaxte au début soixante cinq mille soixante cinq mille ngay fay par séance ordonnance yi bu la gën a tuuti des fois ay trente mille analyse cent et quelques te alors que yi nekku fi. ñaata séance ngay def par semaine. deux séances. Hmm. lan ngay wax ñi lay te bëgg la jàppale parce que euh, ñaan nañ yàlla nga wér. complètement ba mu jeex sa yaram ba mën a eggal say aussi ñan nga wax ñu lay seetaan te bëgg laa jàppale. waaw mais wax ñi may seetaan ñu jàppale ma rek te yàlla tax ba ma delluwaat sama sago parce que man lépp lu ma am rek sa àdduna wérgu yaram moo ma ko gënal hmm. moo gën lépp ba delluwaat samay activité continuer sama jàng pour jàppale sama famille parce que Sénégal fii dafa métti trop alors que ñun suñu famille dañoo xaw a demee wuñ noonu ko loolu tax mu bëgg a jàppale samay waajur bëgg daal ñu jàppale ma te yàlla tax rek. Hmm. nga soxna wala amoo soxna. non jërëjëf mbokk yi dégg ngeen lim jox lépp xale la di góorgóorlu di jàng di góorgóorlu nag di rayante ba war a def bac jour bi mu waree def bac ci la ko li daaneel muy liy metti loo xam ne mais dañuy sant yàlla rek ndax. li ma naan yàlla moom yab jaam su mayul boppam lu ko yàlla jox day jël yàlla moo ko teg lii ñu ngi ñaan yàlla teg ko waaye métti na ci soutien de famille boo xam ne li la war bari na ngay góorgóorlu sa famille amoon ci yow yaakaar nga dem ba jour bi nga war a def bag lii dal la day may lancer un appel nag ndaw la mi ngi jàng ku ko mën a jël en charge tam dimbali ko ñu ngi la ciy tàllal loxo ndax bu ko yàlla dooleeg sagoom ba mu wér mën na koo doon ci réew mi. sans compter li mu war a gérer famille ak boppam ku mënul jël en charge li la yàlla wërsëgee leen mi sa wërsëg nga jël ko ci jox ko ci muy li muy defee science yi nga xam ne moom lay jaabante ndax deux fois dans la semaine semaine bu ci nekk nga fay soixante cinq mille science bi nekk soixante cinq mille semaine bi war a nekk cent trente mille plus transport minimum semaine bi dina dépenser cent cinquante mille mbaalu ko ëpp parce que Rufisque lay jógee te ngeen dem Iyaaso loolu rek tukki la. te loolu xam nga ne benn taxi boo jël minimum di nga ko fay 10 000 te kon 10 000 aller 10 000 retour 20 000 la plus 65 000 yi mu war a fay doole newu fi wax nga ko léegi mu judd ci famille boo xam ne seen doole bariwul ah nit nag su jaaxlee ki ko dimbali mooy mbokkam leen ci tàll loxo yéen ñëpp waaye di sant yàlla rek ci plateforme Dakar Buzz social bi nga xam ne wax naa ko léegi numéro bi mooy 78 601 11 11 ñu ne képp kuy bàyyi xel émission bi rek. ñu téeméer xeebuñu ñaar téeméer xeebuñu cinq mille xeebuñu ba ci million loo ñu fa envoyé dinañ dinañ permettre mu ni ceeti malade bi dinañ ko ko jàppale di ci sant yàlla baax na ndax gis nañ ni ngeen koy bàyyee xel jalis nag fekk feebar boo xam ne feebar bu doy waar la bu metti bu njëkk ay mag la daan daal mais léegi li ëpp li ma koy tourné ay xale lay daal mais yàlla moo ko wàcce muy feebar ñu ngi ñaan daal comme dalagul yàlla musal la ci ñi daal yàlla wéral leen te yàlla delloo leen seen sago ba mën a dox seen i soxla waaye Dakar Bus Social dina ko dimbale 65000 fayal ko science comme 65000 lay fayal science Dakar Bus dina ko fayal science bi mu jóg dem defi science parce que euh, euh, manque moyen moo ko bàyyi fii te ku ne xam ne ne bu ko defee tey deux jours après da koy defaat kon loolu budget la ba tax na Dakar Bus Social dina ko jox 65000 fayal ko 600 science am ngir mu mën a jóg dem defi ci lu mu gën a gaawee lu ñu xaar. le temps que vidéo bi dugg yéen ngeen ci jàpp pour mën a eggale science yi war a def ci yaramam Dakar ba social jox 65000 la. 60 65 Dakar bu social jox na ko 65000 fayal ko séance am benn séance lii nag benn njëgu benn séance la te war na ko def deux fois semaine bi waaye teggil nañ ko bu tay bi nga xam ne moom la war a defi mon frère euh, faju ko daanaka ba jeexal nga te ndaw nga te doole bariwul say bokk jàppale nañ la say famille ñëpp jàpp nañ ci ak say xarit mais Dakar Buzz Social ñëw pour ñaanal la ndimbal pour ñu gën laa bàyyi xel ba pare jox la 65000 pour fay la séance tey bi pour nga jóg dem def ko waaw yëg-yëg bi lan la ci Dakar Buzz. xanaa di leen sant di leen gërëm rek parce que li yombul doon ndaw yore benn site boo xam ne nii àdduna bi yëpp la di jàppale ndaw ñi tamit en plus parce que ñu ngi koy suivre fu nekk mais nag liñ liggéey nii. ñu ngi ñaan yàlla sit bi gën a avancé ci kanam rek yàlla jàppale ñu baax a baax a baax merci mel ne kon Science Tay bi Dakar Buzz fayal na la ko. waaw Dakar Buzz fayal na ma Science Tay bi 65000 waaw. lan ngay wax nag bon volonté yi seetaan Dakar Buzz pour ñu gën laa bàyyi xel pour nga mën a def sa traitement ni mu wéer waree te doom am problème ndax jalis ko ne xam ne ne moyen la ay moyen la laaj. naa ñu jàppale ma rek ci séance yi. wala tamit ku ma mën a jël en charge tamit yóbbu ma ma faju rek waaw parce que waaw surtout en Europe parce que metti na trop te kenn mënut a jël en charge li yëpp chaque semaine cent et quelques mille trop waaw. jërëjëf wax na dëgg science dialyse dafay métti di ci talal loxo nag nga xam ne mooy Marème Faye Sall bien vrai que ne yaa ngi def lu baax. damay dugal ay cas nga participer ci ba malade bi moom mooy woone ma Marème Faye Sall première dame woo na ma jàppale na ma loolu def nga ko fi plusieurs fois donte mos noo gisante man ak yow mais boo jàppalee malade day mel ni mën nga jàppale maa ngi la ci tàllal loxo rek sunu frère bi étudiant la di jàng dem bu war a def bac lii daal ko soo ñu ko mënee dimbalil jëloo ñu ko en charge yóbbul ñu ko Europe mu dem faju comme ni nga ko defee ci keneen ak keneen ñu ngi la ci tàllal loxo ak keneen ku dul Marième Faye Sall tam te yàlla dénk la xéewal te nga mën koo def parce que bari nañ fi waaye di ci gën a woo ñi nga xam ne man ñooy sama état mooy diaspora bi diaspora bi nga xam ne su may dugal kaa yéen laa ciy xalaat su may dugal kaa yéen la sama xel dem ci yéen ndax yéen yéen a may dimbali ci vidéo bi kon maa ngi leen ciy tàllal loxo rek di ci jiital nga xam ne mooy Xaadim Amar di nit ku baax nit ku social di ci nuyu itam ki nga xam ne mooy Ahmed Amar parce que gis naa li ngeen daj ci vidéo yi te yàlla rek tax ak maam jaara ak Anta Sey maam Assou Ténéri bari noonu ñoo xam ne damaa cité ñooñu rek mais ñi may dimbali ci vidéo yi bari nañ ba ci Griff Sougou bi nga xam tam nit ku baax la koy def social maa ngi leen ci tàllal loxo waaye xaadim yow Mohamed maa ngi leen tàllal loxo baax ci sunu kaa bi nga xam ne frère la war a jàng lu bari war ko di nuyu maam Diarra da ñaan yàlla defal leen jàmm numéro am nag ko bëgg jàppale di ngeen bi ci waaye jofal dina jot mën cee jëfandikoo bu leen fàtte tam numéro bi nga xam ne mooy numéro plateforme Dakar Buzz bi nga xam ne mooy 78 601 11 11 nga xam ne neen lu waay am rek boo fo yónnee ñun di doon permettre man Fadel saa bu may dem dinaa ci mën a jël jox ci malade bi jox nañ ko ci 65000 fayal ko ci séance tay jii nga xam ne loolu teggeeku na ko li des mooy ñu xaar seen dimbal yéen ak kun ko mën a jëlal en charge ah, ah, nan nga gisee émission bi di Dakar social waaw émission bu am important la parce que kuy dox ci wàllum social moom moom nit amul fayam yàlla rek am sa fay kon nag ñu ñaana leen yàlla yàlla fay leen rek xam ne émission bu am important la ndax yéen a ngi dox ci wàllum social yàlla na leen yàlla fay. mais jalis nan lay mel guddi gi ak douleur yi nan lay mel nooy dundee ak moom. day metti trop doo nelaw guddi gi gudd toute la nuit da ngay passé toog soo deful séance da ngay toog ba fajar. des fois intervalle deux heures de temps ngay nelaw soo paree pare na biir bi di miti doo am kàttan doo def dara lekk bu baax doo ko mën doo naan doo def dara day métti trop quoi. Mm-hmm. jërëjëf tey metti ku ci mën a jàpp rek nga jàpp ci te xam ne daal ku lebal yàlla yàlla mooy ki lay fay ci micro bi Fadal mi ngeen tàmm di gis la ci cadre bi Seydou laa ci àndal mais fekk si lema sunu kaa bi nga xam ne sonn na te bëgg na ko jàppale nga fàttali ñu tur bi. Adama Diallo. fàttali euh, fekk si leen ci Adama Diallo bi nga xam ne jeune la di jàng jour bi mu war a def bac ci la ko lii dal jërë ngeen jëf yàlla na ñëpp am jàmm Ahmed Amar maa ngi lay nuyu di nuyu Xaadim di nuyu Maam Jaara jërë ngeen jëf.